gars yi ñu ngi jox ñëpp rendez-vous. dimanche 30 la bu kenn des na ñëpp ñëw. incha allah ci monument de renaissance ba suñu face à face la déggee numéro 2 à partir de 20 heures. sama face à ak Boy Niang monument de la renaissance la. ñu ngi jox gars yi rendez-vous. kaar yi na taxaw buntu kër Boy Niang Pikine ñëpp gars yi dugg si ñu dem yëngal xam nga. sama fans yi yéen laay waxal waaye nag maa ngi leen di woo na ñëpp génn ci kàttanu yàlla incha allah yàlla dinañu may ndam.